Les ambassadeurs de la RSIOF organisent première édition Mapat RSIOF. Oui, les ambassadeurs de la RSIOF vous convient à la première édition Mapat RSIOF les 28 et 29 janvier 2023 au terrain de Tongo. Le comité d'organisation a le plaisir de vous compter parmi ses invités et sollicite un soutien pour la réussite de cet événement. Les parrains de cet événement, c'est Seydina Issa Layssamb, maire de la commune de Yoff, parrain d'honneur. Drapeau poids lourd, parrain, monsieur le président, honorable député, monsieur Abdoulaye Diouf Drapeau poids léger, parrain, le bienfaiteur, El Hadji Drapeau minime, responsable politique, Djabel Magré. Enfin, drapeau spécial, l'animatrice, Maria Thiaw. Hey! Asalaamaaleykum mbokki Yoff ñu ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant ñu ngi tey fii nii à Tongoor Koroña centre contrat bi ñu am drapeau Mariama muy drapeau spécial bi diggante buur ax Ila mu am beneen combat ba am tane da siy daw avant boobu ran boo ko nguraan ba da si bëree jien kaaf ga am na combat bu ndaw tamit papa adversaire am tey ñëwul defe naa mbapat mi muy war a am le 28 ak le 29 teenee tongoor drapeau pois lourd bi ñu ngi ko tuddee Abdoulaye laa Sarr drapeau poids léger bi ñu ngi ko tuddee Biram Ñinga drapeau minime bi Jabel Mbegere lañ ko tuddee spécial bi nag moo nekk nii moom lañ tudde Mariama mi xam ne mooy borom Yoff TV defe naa dañuy commencé papa xam naa adversaire bi ñëwul mais foog ñu oo ko mu ñëw joxe si ñaari kàddu moom mi ngi bokk écurie kaaf gi gi papa papa ñëwal tey euh, ki mu papa bi ki mu war a bëreel dafa absent mais dañ koy jox mu joxe mu wax si ñaari kàddu sa adversaire tey ñëwul maa ngi nuyu waa kaaf gi di nuy kii maa ngi nuyu waa kaaf gi di nuyu Pape Samba bu baax waroon naa ñëw nga xam dimanche moo tere ma teg a suuf barke Serigne Saliou. waaw moom instant bi yób ñëwul mais yóbbante na nee yow moom dala xew quoi yéen ñaar du combat. bàyyi ko foofu rek mënoon naa ñëw mag bu doole dàq ka bëri. léegi hôtel hôtel hôtel ñu ngi woo ak ak kii ak Farba. ak ah ok jërëjëf. defe naa kooku mooy jour final bi mooy ubbi moom mooy ubbi mooy bëree papa Maxi papa tey ñëwul. defe naa am na benn combat spécial bi si war a daw. Dieng moom muy jiyee kaaf ga war a tasee ran nguraan ba defe naa loolu derby la quoi nguraan ga kaaf gi. loolu derby ñu ngi njëkk a oo Dieng ana ñu àndaax Dieng waa kaaf gi. Ani andahran wangguran bang. en direct ins bi nii Yoff TV defe naa ñoom ñaar njëkk nañoo laale combat boobu noonu gars yi koy waxtaanee njëkk nañoo laale waraar mais gars yi nee nañ daan na kax daanu ka mais defe naa dimanche dina gën ñu lay nuyu. maa lay fay Paul. la ne gars yi nee nañ ngeen a laale yéen ñaar waraar gars yi nee daan nga ka ñu naan daanu ka dimanche lay leer loo ñuy wax si bés boobu noonu. bi lii paase noonu du ma si wax lii suñu kanam nii laay wax quoi parce que loolu moo ma ñor parce wax ji bëri na quoi boo bëlee mu ngi def mu ngi def ay di envoyé yàlla yàlla tey ñu def jàkkaarloo man ak moom. maa woo ñëpp nag woo waa Kaap gi ñëpp bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn ñëpp laa woo maa woo ñëpp di woo waa Mbadiba ma ñëpp c'est comprendre kii dama bëgg mu xam ne kii waa ji dina jeex Randialo waa ji dina jeex loolu laa bëgg mu xam ko bu dee bëre daaxuma ko déggoo ma de bu dee bëre daaxuma ko mais moom yóbbante na dégg nga yóbbante na nee na yóbbante na nee na bu combat bi nee prix bu arbitre nee prix say tànk la jëm moom yóbbante loolu. na ñëw. na ñëw si may tàngal billaay du du kii bu ma ko bu ma ko ma songa. ñu tontu si loolu tontu si waaw. gars yi ànd rek waaw su sante yàlla jul si yonent bi sant sama ñaari waajur sant sama ñaari waajur xama di gërëm bu baax waa Nguraan bi waaw di gërëm sama gaay suba teer yi dina wax ne maanaam Dieng mi ngay gis ni li tax bàyyi du làmb Dieng du xool Dieng xuli bu bés ba doo xool del xool doo gis léegi léegi yow loo ñu wax si non ñu ngi en direct gars ñu ngi en mas ngeena laalé ya ñaar loñu loñu loñu léral fofu wa jé lañ bëré xam waral lañ bëré benn yoon suñu suñu premier combat waral la woon yaay dégg mbolo moo ko andi won mbolo andi ma ma defal ko bagage yàggu ma mom daan ko ñaari yoon ci benn ci benn takusan néna bobu boobu ci katunu yalla bi day leer si katunu yalla bi day leer loo tontu si loolu Dieng. non loolu du ma am lu ma si tontu parce que bi yu bëree waraar moom bàyyiwul dara diwliñ dooma lépp amoo foo ko jàpp hélas ndaama moo ko indi te moo arbitre ñu sut am ma daan ka hélas ne amul ñu ma bàyyi loolu mu jee xam nga affaire bi lan la dima soriatul gis nga kii ni lii rek la am mbooloo mii nii ay wax rek la si am bu arbitre bi maa la mën eh maa la dàq bëre foofu waa bi ñu bu dee leer laa gars yi ah ñu ñoo may la ñu oote ñu oote. Dieng Dieng ñooy oo ñooy oo si bés. la jàppee nga xam ne lépp dëgg la. gars ñu may la ñu oote gars ñu may la ñu oote instant bii ñu ngi en direct gars ñu ngi en direct ñu ngi en direct nii Yoff TV. Dieng ñooy oo ñooy oo. maa ngi oo ñëpp. maa ngi oo ñëpp mag ndaw ñëpp góor ak jigéen waa Black ñëpp maa ngi oo ñëpp Black waa Kali ñëpp maa ngi leen di Kali ñëpp. kaaf gi bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi oo kaaf gi président bañ ci suuf ñëpp maire yi maa ngi leen xale ya mag ñi ñëpp maa leen di woo waa kaaf gi pam ñi maa ngay woo maa ngay woo waaw ran bés bi waaw bés bi maa ngi woo waa nguraan gi di woo waa mafia bi yaa ngi maa ngi woo ñëpp maa ngi woo insak yi na jàpp si combat bu baax di woo waa glace gi ñoom lébu ak ñoom baaba di woo di woo kër asaama bala maa ngi koy bu baax yaa ngi dégg suba teer yaa ngi nii tike la xaar yaa ngi dégg waxaat Dieng mooy lan. maa ngi sama gars ñoom Xaadar Mbaye ñoom Assane Taw maa ngi woo ñëpp ñëpp maa leen di woo ñoom Assane Taw ñoom Xaadar Mbaye ñoom Youssou Faye gars yi ñëpp maa leen di woo ñoo di moto yi combat bi ñëpp laa soxla. Dieng doo yàpp doo jën. ku xum sa moo ko tere. mbokk yow defe na gis ngeen signature bi bon mooy dox diggante Dienza kaaf ga ak ran nguraan ba defe naa signature bi gis ngeen tëkkunte neen ñoom ñaar tëkkunte neen dineen gis làmb ju neex incha allahu rabbi dimanche dimanche naan wax leen na ku yeex doo doo xaj ku yeex doo am foo dugg leneen teel a ñëw si làmb ji incha allah en place na ngeen teel a ñëw defe naa gis xam ne jaay neen combat di ngeen gis combat bu neex incha bu dimanche na ngeen teel a ñëw jënd ticket yi ngeen dugg ku tardé nag doo am place dina am beneen beneen combat ba mooy drapeau Mariama mooy combat spécial bi moom mooy daw balaa final luur bi di daw muy dox si diggante Illa ax Buur defe naa combat bi tamit combat bu neex la doon incha allah defe naa dañuy njëkk oo Buur mi xam ne mu ngi dëkk fii Tongoor ñu oo Buur ak ñi ànd ak Buur waaw bu ñu paree si loolu dañuy oo Illa gaay gaay aywa eh, gaay déglu gaay déglu gaay déglu gaay Illa borom na gaañ gars yi gars yi gars yi yéen a ngi en direct yéen a ngi en direct xool leen bi gars yi drapeau bi naa ñaari affaire moo si am drapeau bi mooy Ila mi i dëkk nangaañ drapeau bi ki nga ko tuddee waa Nangagne la mais combat bi Tongoor la koy amee mais waa Tongoor moo koy bëree defe naa moom nee ne combat bi à ki ngay bëreel Tongo de moom nee ne combat bi yaa ngi koy bëree à domicile defe naa foofu laay ubbee yow lay wax si loolu. waaw ah, gars yi ñu àndax dégloo ah li direct la nañ si luy sa ñu nu neen la xam nga mu gën a neex quoi buur li ma koy wax bëriwul barke Seydina Mohamed su ma avance ku ko jox mu arrêté ka moom mu jël ko dama koy doole di ko sant yàlla di ko sant yàlla buur billaahi li ma lay wax moom bëriwul làmb di nga bëre ba buur buur buur ah ñooy rafetal rek da nga dëkk tóngoo rek mais xaajab tóngoo buñ doon wàñña man leen faral bari naa buur di nga bëre ba Mbour looy tontu si loolu. bisimilah rahmaani rahiim laa hawla wala quwwata illaa billaah. ginnaaw ma sant yàlla ma may ma bu leen yaakamte may leen ma may leen ma may leen ma may leen ma may leen. ngi julli si yonente bi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam di ñaanal sunub xalifa Duudu Maam Njoon mu yàgg fi lool te àndax wér. di ñaanal bépp kilifa diine bu nekk ci réew mi di ñaanal waa RS Yoff objectif bi ñu am ba def lii maa ngi leen ñaanal li ñu dem ba première division. di ñaanal balaa boobu noonu di ñaanal sama rakk Aliou Menga di ko ñaanal na ko yàlla defal mu doon pro international parce que on est fier pour Aliou parce que du dara. loolu tontu Sa Sa mu wax loo siy tontu. kii yaa may dégg lu ma war a wax moom parce que yaa may buñ nee tóngoor xaaj bii nii moom nañ faral ay ñaandaw jëne mais Ila Ila Ila Ila le fait que làmb ji làmb di bëre à domicile làmb ji loolu defu la dara quoi barka alquran barka Seydina Muhammad jàppal ma ka sax ay jóge fi ñëw naa fi billahi maa ngi ko jàppee man maa moom si fi may waxe si nit laay wax nga ku ma xamul nag du ma bàyyi xel mais yàlla xam na làmba ji bëgg naa si nag muy gën a ñu gën yaatal mbër yi ñëwagul nen si ñu ni la ah ñun ñu ñuy àndal ngir yàlla nañ ko rafetal xam nga mu neex pour deux ñu mën see ñeneen yàlla xam na dañuy ñëw pour passa fonni kafre dem nii mais xoola buur moom dina bëre les canap avance nag drapeau bii nii foog ma yóbbu ko comme te maa rek bu nee na yow drapeau bi de nee na waa Ndangaañ leen ko tuddee drapeau bi Ndangaañ lay des. waa xam nga gaal gu teeragul du raw ginnaaxu géej te damay dégg ñu ne koy wàllu yaan ba sam penc tëgg il fallait nga nga toog ko pour daju drapeau bi foog mu dem mbati pom foog ñu feetoo ko foofu noonu loolu moo tax ilaa amul lu ma koy wax lu dul nekk dina moom dana dina bëre ba boxoo moom dina bëre ba faatu eh, oh, ñooy oo oh, ñooy oo oh, ñooy oo si bés bi maa ngi di woo Pape Seck di woo sama magu bopp aas di woo waa Tongoor gép di woo mafia jinne bi yëpp maa ngi leen di woo di woo sama gaay di woo waa di woo Wili di woo ñëpp di woo waa Ninaat di woo waa Tongoor amul violence di wax ne lii nii nañ ko def ci fair play kii à part combat sama gaay la mais bisu combat bi amul gaay yaa may dégg parce que am na yeneen yoo xamante ne dox na suñu diggante. Ila ñooy o ñu ngi ñaanal équipe bi xam li muy séentu yàlla may ñu ko si xol bu sedd guy jour yàlla defal leen lim bëgg seen xol yàlla fekkal sa leen si man moom li ma si wax bëriw maa ngi gërëm suma waa kër njóobeen gépp maa leen di gërëm maa ngi gërëm suma gaay yaa ngi gis yaa na ma sax ñaari nit la baaxe quoi maa ngi gërëm ne suma mafia bëgg bon barke Alxuraan dan may taxaw mafia bëgg lu bon dan may taxaw maa gërëm yoof gépp di gërëm waa aar barke Seydina Mohamed aw ma seen waa daayif koñ ba ñëpp maa leen di bége xoola maa ngi bége ñëpp mais buur moom baay man dama lay santa gërëm la ñii daw ne duñ bëree te man ba ma yëg ko ñooñu mën nañoo teg jeexal mais buur yow di nga bëre ban ñaaw billaahi ñoo leen gars yi ran ñoo leen moon signature contrat bi gars yi ngeen xaar ñu samedi dimanche ngeen bu baax samedi et dimanche Tongoor ñu ngi nuyu waa Yoff gars yi defe bu bëri moo nar am ku yeex illa li mu war a mobiliser mu jëlee nëngaañ jinne ñu war a andi ran waa nguraan ba waa kaaf gi defe naa ku yeex doo doo xaj si si terrain Tongoor da ngeen teel ñëw 3 heures mu fekk leen fi ndaxte lamba ji laa mi ngoon la ñu oote fair play na gars yi fair play leen koy def parce que dañ ko dañ ko pour RS Yoff pour équipe bi yee si kaw fair play ñu bëri ko si jàmm que le meilleur gagne defe naa gars yi bëgg nañ leen jaayeen jëf salaamaaleykum ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp di leen bëggee waaw di wax ñu ngi jëm suñu journée bi ñu suñu mbapat mi mbapat RS Yoff première édition muy samedi le 28 à dimanche le 29 ñu ngi siy woo ñëpp nag waaw ñu ngi siy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn yoof magaax ndaw bàyyiwuñu kenn di ko jëkkee si suñu maire Seydina Issa Laye waaw ñu ngi koy ba ñëpp bàyyiwuñu kenn kenn kenn di si wax nag am foola rek foola rek moo tax ñu organiser ko du loo xamante day am violence comme ñu ni ni ñu koy xalaatee ku nekk a ngi wax mais loolu du si am incha allah ñu ngi dalal seen xel bu baax di wax ne loolu di si am ñu ngi siy oo ñëpp nag ñu ngi siy oo ñëpp ñëpp ñëpp yoof gépp incha allah xanaa ma jox sama mbokk mi Mbaye Samba rek mu sànni si ay kàddu abare ñu jox jàmmalaay ñu tëj incha allah. defe naa li am importance wax nga ka surtout fi mu fi mu jeexalee laa njëkk ñëw mooy dañ ko organiser pour RS Yoff pour équipe bi defe naa jaamaleen si soxlaa jaamaleen si soxlaa mooy zéro violence dañ ko ñëw pour foo kaf fooree ñu ñëpp ñoo yoof leen dëkk lépp yoof lay des. drapeau bu ko gagné tamit biir Yoff lay des te benn écurie bi la ñu ñëpp ñoo far defe naa dañ ñëw fii nii pour kaf foree ko ñaam bi li ma ko waxee oo leen ñëpp ñëpp ñaam te ne da ngay jàppale RS Yoff ñu lay xaar si lépp benn côté muy matériel muy finance lépp nga jàppale ñu si parce que ñun lu ñuy def lépp pour équipe bi la pour équipe bi tey jii mu yéeg kon ñaam bi ñu koy ñu ngi oo monsieur le maire bi nga xam ne moom la fi yàlla teg Seydina Issa moom mooy parrain d'honneur bi mu ngi koy oowaat si bés bi jàpp si ñu ngi oo moom mooy tuddee poids lou bi mu ñëw jàppa si biram ñinga mu ñëw jàppalañ si bés bu baax mooy lese bi waaw ñu ngi oo yoof gépp gépp ku lim nag da juum defe naa ñu ngi oo ñëpp ñëpp ñëpp di wax chaque jours zéro violence zéro violence jàmm leen bëgg dajale moo ñu tax a jug waaw coow taxu ñoo jug jël leen matukaay yëpp yaa am teen rek pour làmb ji dox daw si yoon la incha allah ñu ngi oo yof gépp ñu teel génn làmbi bi làmbi ngoon la trois heures lay commencé incha allah ma jàmmalaay mu tëj. ñu ngi siyaar ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di baaluwaax ñëpp di baaluwaax ñëpp di nuyu suñuy papa suñuy yaay ñëpp di oo nag surtout mbëri Yoff ah, pour ñu indi seen bopp indiwaale seen fair play parce que dañ ne woon làmb dootul am Yoff mais ñun nag chaque jour dañuy bañ loolu parce que dañuy am ay rakka yoo xamante ne ñu ngi ñëw di bëre jàmm lañ leen yéene te xam nañ qualité yi nekk si ñoom boy di ñëw si làmb di ñëw ak discipline indi fair play bu mat sëkk xam na c'est le ki qui am nañ ay mbër yu jóge fu ne di ñëw si làmba ji nag mais dañ leen di teel a woo trois heures incha allah dinañ commencé mbër muy ñëw da ngay bindu indi sa carte d'identité ak sa mille francs inscription trois heures ñu commencé bëre quart de finale demi finale bu ñu xëyee dimanche ñu bëre finale incha allah ñu ngi oo jaraaf yëpp aywa ñu ngi oo yof gépp pour ñu ñëw jàpp si surtout nag suñu maire yof Seyna Issa ñu ngi lay woo Diouf Sarr Baye Jabel mi ñu tuddee suñu drapeau bu kee bi moo wax laay Brésil ñu ngi leen di oo samay kilifa ngeen per biram ñi nga ñu lay wo nga ñew japp ci bu baaxa baaxa baax yof gep ñu leen di o ta xamne li ñu yor ni du yofi tongor du yofi ngor du yofi wagam du yofi nangañ du yofi fen du yofi layen yofi yof lañ yor yof mo ñu ñor quoi motax ñu teug ñun ñi nga xamantene ñoy ambassadeur yi maa ngi woote surtout père mang ñu ngi la ci jëk wo parce que ya fi suñu kilifa ñu ngi lay wo pour nga jëk teew yi ñep buñ la gisee dañuy gëna sawar ci lepp kon père mang ñu ngi la ci wo bu baaxa baaxa baax di ñaanal ñep di suñu télé bi nga xamantene moy yof moom lañ am nag moom lañ ñuy sagoo moom la ñuy tiitaroo parce que fu ñu jëm ñu nax moom la ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp surtout grand siège ñi nga xamante ne ñoom la ñuy àndal chaque jour ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax wasalaam. Les ambassadeurs de la RS Yoff organisent première édition Mbapat RS Oui, les ambassadeurs de la RSIOF vous convient à la première édition Mapat RSIOF les 28 et 29 janvier 2023 au terrain de Tongo. Le comité d'organisation a le plaisir de vous compter parmi ses invités et sollicite un soutien pour la réussite de cet événement. Les parrains de cet événement, c'est Idina Issa Laisam, maire de la commune d'Eyof, parrain d'honneur drapeau poids lourd parrain monsieur le président honorable député monsieur Abdoulaye Diouf drapeau poids léger parrain le bienfaiteur El Hadji drapeau minime responsable politique Djabel Maigret enfin drapeau spécial l'animatrice Maria Machaou. Hey, quand on mbir le 28 et le 29 janvier nous dellu ah gars yi Salam euh, renaissance sportive

bëgg nañ nga dem taxaw les ambassadeurs taxaw les ambassadeurs mooy taxaw la renaissance sportive de Yoff ñu joxante fa rendez-vous jour bi incha allah rabbi. asalaamaaleykum waa Yoff ñu woo waa Yoff di leen siyaar di leen balu àq di leen baal àq di woo nag benn xew-xew bu am kañ la le 29 samedi ak dimanche fan teere tongool di fa woo ñëpp nag mbapat spécial RS Yoff la fair play bu ci kenn fair play na ñëpp ñëw teel a ñëw sañse toog ñu bëggee jaajëf.